تغريب الشباب مظاهر وسائل طرق الوقاية gannaaw sant yàlla suñu borom tabaraka wa taala ak julli ci yonente bi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñi ngi ñëw ci bindu tay bi bëgg jàngat ak yéen bunt boo xam ni mbokk yi ñooñu ko tànnal tuddee ko taxribu shabaab madahir wasail wa turuqul wiqaaya dinañ ñëw ci biir waxtaan wi xam naa lu bari di ngeen ko gis ci mbind mi du ngeen ko dégg ci wax ji ndax mbind ak wax seen méngoo léeg-léeg day xaw di des bu ñu jàppoon ni am nañu lu ñu gaaralee bind bi kon dañ koy def ci beneen anam boo xam ni dañ ko gën a tënk ngir ngeen gën koo mën jariñoo bu ngeen noppi ko soxla mën koo yóbbaale kon ñaari géndeeku lay am ci tàmbali waxtaan wi ñaari géndeeku yépp nag ci ci man lay aju ci waajal thème bi ci niveau boo xam ni dañ ko jàppe woon niveau ay mag donte ñi fi toog ñëpp ay jàngkat ngeen te yéen dañ yaakaar ngeen doon suñu magi ëllëg donc xam-xam amul at bari na ndaw loo xam ne xam-xam moo ko def mag waaye bari na mag moo xam ne réer moo ko def xale kon ñu jàppee leen ci ndaw yi nga xam ni xam-xam moo leen def mag kon ci anam boobu dina feeñ ci biir waajal wi ne jëm ni ci tabaqa boo xam ni xaw naa gën a kawe ci ay at waaye teewul ci biir wax gi mën nañ koo wàccewaat ba mu tolloog yéen ñaareel bi léeg-léeg baat yu bari ci bunt yu mel nii firi ko ci baatu wolof bu nit ñi mën a dégg day jafe donte am na waaye xam ngeen ni bokk na ci jeexi jeexiti bunt bi ñu nar a jàngat mooy lu bari ci ñun tey déggatuñu suñu làkki gox tey waxtaan yu moo ko defoon ci làkku wolof ba jeex te benn baatu tubaab dugg ci benn baatu arab dugg ci dana néew ku fiy génnaale njëriñ ñu bari buñ génnee duñu xam luñ ci wax ndax dafa fekk ni am na lu dugg ci loo xam ni jëfandikoo yenn baat yi mooy tax nit ñi mën a xam li ngay wax bunt bi ñu ko séddale ci ñeenti tomb yoo xam ni benn bu nekk mën nañ koo jox dara ci waxtu bi ci njëkk mooy firi baatu taxrib bi nga xam ni moom lañu tuddee mawdu bi thème bi niñ ko tuddee bunt bi niñ ko tuddee buñ ko waxee luñ ciy dégg bi ci des mooy loola bu jubloo ndaw ñi lu muy tekki ñetteel bi mooy ci yàlla feeñ ci taxawaayu ndaw yi ak seeni seeni melo ñeenteel bi ci yan jumtuwaay la ñi yenu xalaat boobu yan jumtuwaay lañuy jëfandikoo yan moyen lañ am ngir yegg seen jumtuwaay bu mujj bi nag naka lañuy ñuy def ba mucc ci loolu aatu suñ bopp aatu suñ njaboot ci tàmbali bi yonente bi alayhi salaatu wasalaam deeloon naa xamal jullit ñi ne am na lu mel ni fitna wala jafe-jafe dundin woo xam dana jafe-jafe dundin woowu yonente bi alayhi salaatu wasalaam leeral na ko ci njàngale mi mu wax ni latattabi'anna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa diraacan bi diraacin xatta law salakuu juhra dabbin la salaktumuuh qulnaa yaa rasuula allah alyahuud wannasaara qaala faman yonent bi alayhi salaatu wasalaam newoon na wér na ni di ngeen topp yoonu ñi leen jiitu c'est vrai c'est vrai xasab-xasab chebre mooy diggante baaraamu déey ak baaraamu joxoñukaay koy tuddee baaraamu sànnekaay ñaari baaraam yi seen diggante mooy chebre ziraa mooy xasab yu nekk ci conc ba ci cati baaraam mu ne di ngeen leen topp nag ñi leen jiitu noonu ngeen leen di toppee fu ñu teg seen tànk ngeen teg fa seen tànk fu ñu teg seen loxo ngeen teg fa seen loxo ba buñ duggoon ci baxu mbët ngeen dugg fekk leen foofu saxaaba yi ni ko waaw ndax yahudi ak nasaraan nga ci jublu mu ni budul ñoom ñan laa ci jublu li muy wane kon mooy yonent bi teroon naa xam ni xeetam wi du ñu mucc ci toppandoo ji leen jiitu te toppandoo googu mooy li leen di alal bu ñu xoolee li nga xam ni mooy melokaanu ndaw ñi seen roy ñu dul ay jullit ci yahudi ak nasaraan yi ndax loolu lañ jublu ci baatu taxir dañ dugg ci kanam moo li ñu tuddee occidentalisation mooy ndawi réewi jullit ñi di toppandoo ndawi réewi ñeneen ñu dul jullit dafa am benn gëstukat boo xam ni ku mag la ci ñi yenu woon liggéeyub def réewi jullit ñi ñuy ay réewi nasaraan ñu koy wax Samuel Zummer moom ñëpp xam nañ ko ci période bi mu dund euh, diggante trent cinq ak cinquante deux ci jamono jooju la activité am gënoon am solo ay yëngoom ci la gënoon a rëy jiite woon na sax ab euh, jumtuwaay tas xibaar woo xam ni journal la woon ci charqul awsat la ko jiite woon tuddee ko majallatul alamul islaami nekkoon ki ko jiite woon daan ci bind lu bëree bëri daan ci tasaare ay xalaatam dajale woon mbooleem nasaaral arab ñi nga xam ni ay nasaraan lañu te dëkk ci réewi arab yi mu boole leen organiser leen ñu am jubluwaayu gëstu lislaam ngir jëlee ci biir lislaam lu yàqal jullit ñi seen bas-bas moom loolu moo nekkoon liggéeyam am na ci nag ay jéego yu am solo ndax boo xoolee yim ibbi woon yim samp woon dëkk yim samp woon fu mel ni Bahrain fu mel ni Liban fu mel ni Égypte nga xam ni amoon na fa ay jéego ak ay yëngu yu am solo gis nañ bi mu fa jógee yim fa bàyyi bàyyi na fa xeet jullit ñi nga ñi tuddee seen bopp ay intellectuel ay kaani ñoo xam ni daanaka seen weddi lislaam bu ñu leen wutalul gàttug réer moom lu fës la dem nañ bay sikk ci lislaam di ci wax yoo xam ne yu garaaw garaaw la leen jullit ñi yërëme xëy na ñenn ñi ma wutal leen gàttug réer waaye bu dul gàttug réer moom ñenn ñi ak noonu bu fës lañ mujjee waaye ci islaam te aju nit lañ moom ci ñi liggéey loolu la bokk am na bis mos naa wax nii te loolu mooy gannaaw bi Grande-Bretagne di Angleterre dominer Palestine ba ñu nekk ci préparer waajal sampuk état Israël bokk na ci li mu moom moomu di ko xamal ñi nga xam ne ñoo la bokk doon liggéey ne la ci jamono jii ci fii nga xam ni fii la dix-neuvième siècle toll fexe nañu ba yirif mbooleem programme yi jàngale ci réewi jullit ñi waajal nañ jeunesse boo xam ni ci réewi jullit ñi amuñu genn jokk ci yàlla maanaam amuñu benn rapport ak diine bëgguñoo sax xam seen diine te boo demee ci réew yi nga xam ni moom lay junj am na ci xeetu ndaw yoo xam ni li mu wax ñi lañ mel mu ne génne ngeen leen ci lislaam te dugalu leen leen sax ci ay jikko yu baax mu dara loo xam ni jox ngeen leen bu ko defee jeunesse boobu ngeen préparé ci seen i bind ak seen production intellectuelle mooy yi ngeen di génne di leen ko jox mel na comme ni ngeen bëggoon amuñu yitte ci seen diine amuñu yitte sax ci fonk ay kilifa ak jox leen cër seen yitte yëpp ci àdduna mooy noppalu ak tayal amuñu yitte jeneen ju dul seen bànneex ak topp àdduna li nga xam ni wax na ko ci jamono ji nga xam ni jamono ju doy war la ci alamul islam yi ndax mooy jamono ji nga xam ni la yéefar yi ware seen doole ci réewi jullit ñi charqul awsat ñëw di fa waaj ngir samb fa Israël loolu processus la bu yàgg yoon la wu gudd woo xam ni fi mu mujj ak ñoom mooy wan alamul islam yi ne ko ñun ñoo la ëpp doole mooy jël nañ li ngeen gën a bañ muy yahud ngir seen i wor ak seen wax yu amul ak seen weddi ak seen dëngee dàqoon leen ci jazira bi ñun ñi ngi leen delloo si wat ak sunuy pexe loolu nag bi mu koy wax fekk nañu liggéey liggéey boo xam ni résultat bi mooy mooy li mu wax li am nag tey mooy dem na ba ci xelu jullit yi li ñu tuddee culture occidentale mooy anam ak dund mi nga xam ni moom la waa réewi tugal di réewi occident boo waxee occident nag mi ngi ëmb Europe ak Amérique ak mboolem dëkk yi nga xam ni dañoo ànd ak ñoom ci seeni taxawaay ak seeni i boo tuddee dëkk yooyu yaa ngi tudd Japon boo tuddee dëkk yooyu yaa ngi tudd lenn ci dëkk union soviétique ñoom ñëpp tey bu ñu tudd baatu occident alxarb ñoom ñooñu lañ ci jublu kon am na jullit ñoo xam ne tey seen bët bi ñuy xool occident ak bët bi ñuy xool seen développement ak seen culture mooy seeni aada bët la boo xam ni bëtu naw la ak fonk ak jox cër ak jàpp ni loola moo war a ñëw wuutu ñoom li amoon ci ay aada ak i taxawaay ak ay dundit loolu am na lenn ci ñuy gëstu ci wàllu sociologie mooy xam-xamu euh, dundin ñu waxoon loolu nekkin la ci doomu aadama bindin la ci moom foo ko fekk ñu ki ko not ba not googa mu mujj koo nangu day mujjee di roy kooka man Ibn Khaldun ci gëstu yi muy gëstu dugguñ ci pas-pasam nag dañoo dugg rek ci gëstu yi muy gëstu ci wàllu xam-xamu ijtimaa mooy xam-xam social xam-xamu société li nga xam ne wax na ko ci te muy wax yu wér yoo xam ne ba léegi borom xam-xam yi gëstu ci wàllu sociologie dañoo fonk loolu ay gëstoom ndax gis nañu gëstu la yoo xam ne gëstu yu xaw a xóot la muy ay xeet ci xam-xam yoo xam ni tey dañ koo sàggane te bu ñëwee ci kanam danañ gis ñi bëgg a yàq xeli jullit ñi yàq seen dundin bokk na ci xam yi ñu gën a fonk mooy xam-xamu sociologie mooy xam-xamu dundin ndax xam nañu ci xam-xam boobu ci lañuy mën a teg ay yoon tër ay xalaat ci soppi dundin ñu ñooñu fekk duñ ko yëg loolu dañ ko gis ci kanam bu ko defee kon melokaanu dundin yooyu nga xam ni jëlee nañ ko ci Occident tey feeñ na ci mboolem mu dund gi feeñ na ci école yi boo duggee tey fu mel ni suñ réew école bi fi am du école Sénégal waaye école Occident la bu nekk biir Sénégal boo ci génnee yenn école yi nga xam ni ñi ngi jàngale euh, diine di jàngale aaday réew mi di jàngale xam-xamul islam yeneen école yi te ñoo gën a bari ci réew mi école yooyu école Occident la maanaam école la yu nekk biir Sénégal waaye Occident ñoo ko dox programme boo xam ni moom lay topp moo tax école boobu ku fa génn te fekk kenn dimbaliwu la te jox la ci ay jumtuwaay loo mën a jàmmaarloog xalaat yi ñu la jox boo deful nag xalaati Occident nga yor anam yu nu Occident ci ngay xalaat li ñuy xalaate feeñ na ci mbedd bi tey boo génnee ci mbedd bi di xool ki la rombuy dox moo xam xale bu góor la wala xale bu jigéen la boo xamul dara ci moom waxula turam mën ngaa laaj sa bopp ndax ci jullit la lu du jullit mën ngaa laaj sa bopp ndax ci ci waa réew mi la wala gan la bu jógee bitim réew ñëw wàcc suñu réew wala nga laaj sa bopp ndax doo xàmme lu doon dem na ci wàllu journaux yi dem ci wàllu télévision ak yëpp danañ gis ci jumtuwaay yi ne lu ñuy jëfandikoo la ngir mën a tasaare seen xalaat boobu kon buñ bëggee firi ak taxrib ni ngeen ko niñ ko jàngale mooy moom daal anamu nekkin la woo xam ni day wéeru ci boroom amuk yéemu ak bëgg a roy lépp loo xam ni mi ngi jóge Occident mooy jàpp ci ay aadaam ak organisation sociale mooy li nga xam ne noonu la ñu tënkee seen dundin ak ni ñuy jëflantee dem ba kii nekk ci mbooloom jullit ñi day mujj bokk ci jullit ñi waaye ni muy gisee ak ni muy xoole gisin la ak xoolinu Occident loolu moo jubluwaay bi nga xam ni xam xamla taxribiya bi nga xam ni moo jógee Occident ñëw ci réewu jullit ñi ngir def leen ñu dul jullit wala ñuy ay jullit yu néew doole yu ñàkk solo julluwaay bi la am mooy yow tey mu nekk Sénégal wala nga nekk ci beneen réew ci réewu jullit bi boo gisee tubaab doo doo ko xeeb boo gisee tubaab ak seeni aada yoo xam ne lu si gën a bari dafa ñaaw aada yoo xam ne rafetul si luy sewut jëmal ci lu baax waaye fexe na ba aada yooyu dugal na ko sa bopp ne lu baax la ba tey da ngaa mujj boo ko gisee doo doo ko xeeb waaye da koy naw mën nañ ca joxe ay misaal ci lenn ci loo xam ni ci dundinu Occident du lu aay jàpp nañ ni lu baax la dana feeñ sax ci lenn ci mazahir yi nga xam ni walla ci feeñ ci taxawaayu ndaw yi yi wane ni ñi ngi jël seen anamu dund te loola du lu baax ci ñun ci suñu yàlla ñun waa réew yi ak réewi lislaam li ñu xamoon ci diggante waajur ak doom mooy doom day fonk waajuram sa waajur ñemewu la wax ngay teg ci kàddoom dara waxuma la nga muy wax ngay weddi ay wax feeñ na ci comportement ak ko yi nga xam ne jëlee nañ ko ci ñoom ne aayul sa waajur wax nga ne ko waajur waxoo dëgg tey ab tubaab li ma ci jublu mooy aada ji lu ma ci xeet wi ndax lislaam amul unsuriya ab tubaab aayul ci moom bàyyam wax ba noppi mu ne ko bàyyi waxoo dëgg li nga wax du dëgg lii mooy dëgg nga seetlu ni bàyyi bi du ko mer du mer te jàpp li mu ko wax nii xalaatam dafa normal moo tax mu wax moom xale bi dafa gis ni li bàyyi wax du dëgg mu mu mu koy jéem a tontu di ko jéem layal li daa waxam nekk dëgg ndax kenn ci ñu xalaat na loolu xalaat na waajuram wax mu ni ko li nga wax du dëgg ba noppi di xaar ci waajur wi mu jox ko ay lay yuy firndeel li mu wax dëgg waaye mbokk yi doxantoo ci yenn kër ci kër yi nga xam ni ñoom la feebar wi daal danañ gis ni sa waajur wax nga ni ko bàyyi wax du dëgg lii mooy sama xalaat loolu aayul am na kër yoo xam ne loolu aayul loolu lu yomb la loo xam ni ci biir waxtaanu bàyyi doom bàyyi dana wax doom ne ko li nga wax ni du noonu wala li nga wax ni du dëgg papa man yaakaar na ne lii ak lii ak mooy dëgg bu ko defee papa ji daal jéngal bopp ne wax nga dëgg loolu ay mbir la yoo xam ni ci seeni aada rafetul baaxul waaye ñu ngi koy naw ci ñoom leneen ci aada yoo xam ni même ñeen ñi daal bind sax ci taarixul islam ak li li islam indil xam bokk na ci liñ ci bind muy lu xaw waaye lu am la ku topp seen culture noonu la demee woon mooy xam nga ni lislaam jàngale na ba jàngale nit ni muy demee woon ak loolu dafa leer jàngale lislaam mooy bàyyiwul dara culture occidentale yàggul yàggul dara bi ñu jokkoo ak Afrique orientale wala Afrique méditerranée mooy Afrique bi nga xam ni moo féete moo ñu féetee ci penku bi ñu jokk ak ñoom ci la ñu soog a gis wuute gi am seen diggante aada ñoom ak aaday lislaam ci wàllu dem woon boo demee ci musée yi musée Europe yi ñu wan la seen toilette ni meloon du woon toilette yoo xam ni dañ koo séddale du woon ay wanag yoo xam dañ koo seddale ku nekk boo ñëwee dugg sa wanag déedéet waaye day mel ni salle bii rek ñu def ci ay pax pax pax pax ba mu jeex bu ko defee ku ñëw rek. toog faj sa aajo ba pare génn dem maanaam mbooloo ci nit mën nañoo ñëw daje ku nekk yi faj aajo ñuy jàkkaloo di waxtaan bu faj aajo nga jeexee ku nekk di dem sa yoon loola seen aada la woon ñu daan dund bi jaxasoo jullit ñi ci leen gis ni loola du rafet gis ne jullit ñi ñoom dañuy beru ni ngi noonu wut nañ sax ay wana yoo xam ni danga nga cay bu dee ci kër gi sax dafay nekk fu sori nga xam ni euh, ki ne ci wanagam kenn du kenn du ko yëg kon muy ay aada yoo xam ne aada yu ñaaw la dem na ba léegi loola moo jur li nit ñi xamul mooy tubaab amul kersa ci toog ci biir mbooloo ngelaw wala amu ci kersa xam naa ni sax bu ngeen di dañ koy def ci ay concours yoo xam ne ay kilifa ñoo ñëw toog ku nekk di war sa borom ñoo ko mëne <laughs> loola muy xam ne ay aada yu ñaaw la euh, ñi ngi koy def te taxul ñu xeeb leen ñun maanaam dañ koy xool di ko ree teewul tey bu la tubaab rombee ba léegi yaa ngi koy jàppee nit ku am saqaafa maanaam nit ku am culture boobu nit ku kawee ci xalaat googu loolu am na lu ko jur ci kanam danañ ci danañ ci gis tuuti. waaw ba léegi mi ngi am fii de waaw gis nga <laughs> waaw gis nga nee na même école yi tabax fii nga xam ne tubaab yi ñoo ko tabaxoon boo demee école normale da nga fa fekk toilette yoo xam ne noonu la mel nga xam ni di ko tubaab bi taxee wala tabaxee woon noonu lañ ko bàyyi kenn dindiwu na sax yoo xam ne ñu ngi koy jéem a jëli ci ñoom Euh, tuurukaayu a gaanuwaay yi nga xam da ngay taxaw nga xam ni mbooloo nit dañ ñëw taxaw ñoom ñëpp di gaanuwaay am na sax jàkka yoo xam ne gis naa ko ay jàkka yoo xam ne def nañ ko fa muy lu ñaaw ci culture occidentale waaye yàgg bu ñu yàggee dem seen i di dem ci seen i bërëb di ko gis dem na ba tax ñu jàpp ni ayul waaye xam nga demagum jëm taxaw di euh, gaanuwaay dend ak ay nit ñuy gaanuwaay ku nekk yi wax ak sa borom xam nga ni loolu ci teggi ni lislaam ak teggini aada yi réew mi sax doonoon loo xam ni lu rafet waaye jàpp nañ ni euh, comme dañoo yàgg tukki seen i réew te bu fa tukkee loolu la ñuy gis dem nañu ba ba di leen roy jubluwaay yi nga xam ne am nañ ko nag ci seen jëf jooju ñuy jëf mooy xam la boobu nga xam ni moo jublu moo jublu occidentalisé ndaw ñi bi ci njëkk mooy indil leen sikki ci seen diine ndax dañoo gis ñoom ñii yenu yitte jooju nga xam ni mooy def adduna bi yëpp ñu bokk yenn aada boo dégloo li ñu tuddee culture universelle wala culture mondiale te ay mbooloo yu bari di ko dawal bokk na ci mbooloo yi gën a rëy tey yi dawal loolu mooy UNESCO li ñu tuddee culture mondiale universelle mooy fexe ba nit ñëpp am benn aada benn aada joo xam ne mëntalax bi maanaam départ gi mooy doon aaday Europe Europe lañuy jël aadaam mu tasaaroo mëdd mbooleem aada yi nga xam ne ñoo am ci àdduna bi te ñoom ñu gis ni bokk na ci li gën a mag li taxaw ci diggante nit ki ak loola mooy diine ndax diine bu leen fàttali du jaamu yàlla rek waaye jaamu yàlla la yoo xam ne ay pas-pas moo ko lal am wax ak waxin am sax xadaara boo xam ne dafa ànd ak moom maanaam lislaam dafa dem ba jur xadaara boo xam ni maanaam civilisation boo xam dafa ànd ak moom maanaam jullit ñi seen lépp mën nañ koo jëlee ci seen biir diine loolu nga xam ne jafe na ñeneen ñi am ko ku nekk tey sa biir diine di ngay dund am na loo soxla feneen nga ko jëlee ci waaye jullit ñi ñoom seen biir diine li ñuy dund lépp mën nañ ko jëlee ci biir soxlawuñ ci jéggaani lenn fenn te luñ ci jël day yéwén ci mbooleem jamono ak mbooleem place ak mbooleem nit loolu dafa doon mandarga mu foor moo xam ni lislaam da ko màndargawo loolu nag tax na ñi bëgg a xeex ba samp aada yoo xam ni aaday adduna lay doon bokk na ci seeni taxawaay fexe ba ndawi jullit ñi di sikk ci seen diini sikk googu euh, am nañ ci ay liggéey yu mag yoo xam daanaka boo seetloo lavage de cerveau maanaam rasu dimaag fexe ba raxas bopp nit ki ba nga xam ni li nga koy sor rek lay gëm loolu liggéey la moom dañ koy tàmbali bi ñu nekkee xale maanaam bi sa doom nekkee xale la ñuy dugal ci boppam bi nga ko yóbboo jardin rawda muy jàng bokk na ci programme bi ñu def te boo gisee ñoom ñu fonk maternelle lañ maanaam seen programme maternelle UNESCO boo demee programme maternelle la commencé mooy xale bi fi nga xam ni fii la xelam di tàmbalee xàmme àdduna di xàmme ay nit di xàmme ay nekkin ak i melokaan jamono jooju lañuy dugal ci xelam loo xam ne bu ñu ko ci dugalee du yem rek ci xel du yem rek ci xel waaye day dem ba ci gannaaw xelam maa war a alaq ñu tuddee maanaam mbir mi dafay dem ba samp foofu nga xam ni léegi bu bu defee réaction maanaam bu defee infial bu gaaw infial boobu li may feeñal mooy li nga xam ne def nañ ko ci moom bi mu nekkee xale tuuti moo tax nga gis ay réaction yoo xam ni nit ñi dañ koy def duñ ko tey fekk dafa am lu ñu defoon ci seeni xel lu ko jiitu loo xam ni bi ñu réagir noonu lañ réagir tey am na jullit boo xam ne boo nee charia rek tiit na tiit maanaam mun mënu laa wax lan moo tax maanaam baat bi sax xamul lu muy tekki boo ko laajoon charia amoon xamul euh, waaye def nañ ci xelam su conscience am ci ginnaaw loo xam ni boo tuddee baat bi dafa am fu muy dóor ci xelam day tiit léegi la après mu soog laa laaj rek loo ci loolu liggéey la boo xam ni ñi ko def dafa am fu ñuy tàmbalee kon xale bi bu nekkee xale gi di ko yar foofu ngay dugal ci xelam ay jikko ak i taxawaay ak i melokaan ak yu mu war a rafetlu ak yu mu war a ñaawlu ak yu war a baax ci moom ak yu war a bon ci moom ba nga xam ni bu màggaanee noonu li nga bëgg mu lu moom lay rafetlu li nga bëgg mu ñaawlu moom lay ñaawlu boo yoree xale si kër di ko yar jamono jooju nga xam ni xale la màggagul xelam mi ngi tàmbalee. foofu nga mën a dugal ci moom yu bari tey am na xale boo xam ne yar nañ ko noo xam ni bu déggee saaga day tiit day ñëw sax di boole waajoor ne ko diw dégg naa ko mu saaga parce que dañ koo yar ci nii saaga baaxul dañ ko ci sax mës a indil jafe-jafe ba tax na mu dem ci ginnaaw xelam ba léegi nekk lu muy xalaat bu ko déggee day tiit ni ki noonu tubaab yi nga xam ni ñoo yor Euh, xaraka bi nga xam ni moo jëm ci tasaare seen aada ci adduna bi gis nañ loola ba jàpp nañ ni aada yu bon yi ñu bëgg adduna bi jël ko tey duñ bàyyi bañ nekk mag ñu soog leen koo jox xam ngeen ni fan yi indi na débat bu mag Europe surtout France ak Belgique bi ministre de l'éducation jëlee dogal ni mbiri góor jigéen mooy góor gu bëgg doon jigéen nga xam ne ñëpp xam nañu lu bon la maanaam ci wàllu xel ci wàllu diine ñëpp xam nañu lu ñaaw la lu baaxut la maanaam du du orientation du jubluwaay waaye inxiraaf la maanaam jeng la jàdd la parce que ñoom même mooy dañ ci joué duñ la wax léegi désorientation sexuelle waaye naan orientation maanaam jub maanaam nit ki dafa am fu mu war a fu mu bëgg a jublu moo fa jublu waaye lu dëng la léegi bi ñu ko bëggee saxal jàpp ni société bi da koo ñaawlu ba nga xam ni mag ñi léegi ñoom pour gëmloo leen ni lu baax la wala mën naa nekk wala jubluwaay la comme ni yeneen jubluwaay yi mel loolu lu jafe la ndax boo xoolee xibaar yi fay jóge di nga gis ay kilifa yu mag ci ñoom taxaw def taxaw taxawaay yoo xam ni da ngay yéemu sax ci nii nit ndaka de mën naa yegg ci waax yi bu toll nii ci xam mbir mi ni mu bore ak mu taxaw ci war koo défendre ci lañ gëm ñoom lu wàññi ni lu bon la léegi ñu ni kon ci xale yi la ñuy commencé nu ñuy def dañuy def programme boo xam ne xale bi ci classe bu ndaw bi ci jardin bi fa lañ koy jàppaloo ni nit mën naa nekk góor mën naa nekk jigéen mën naa bañ a doon góor bañ a doon jigéen waaw lu ñu tuddee te théorie du genre léegi ñu di professeur bi jàngale nga xam ni moom moo yor jardin bi tey day ñëw mu sol yëre góor ñu ni suba buy ñëw classe yëre jigéen lay sol bu dugg see élèves yi danañ yuuxu danañ tëb suñu suñu prodo sol xale yére bu jigéen yëre nit ku jigéen bu ko defee mun nag expliquer leen lan moo tax mu sol yëre jigéen ne loolu bu ñu ko yàggee def dana dem ba xale bi nam doon ñaawloo euh, góor bu yor melokaanu jigéen dootu ko ñaawlu noonu ndax xam nga ni ñoom seen seen te yegg na ci léegi ay góor dañuy soppi dañuy soppi seen bopp doon ay jigéen di sol solu jigéen saxaal seen bopp ay ay ween doom yoo xam ne daal boo leen gisee yow boo leen xàmmewul da ngay ñii ay ñii ay jigéen lañu loolu am na foofa te ñoo ngi ko du rafetal ko ci ñoom mu ngoog mu foowukaay dem nañ ba di awlante ay foowukaay góor ñi fooyee foowukaay yu jigéen jigéen ñi fooyee foowukaay yu góor loolu yëpp programme la wax dañ ko teg am na ay parents d'élèves yu bari yoo xam ne dañ ñëwoon duñ dugal seen doom école ren foofa ca tugal ngir bañ ñu jàng aada yu ñaaw yooyu ba fi ñu mujj mooy pression bi yegg na ci léegi te tegañu nañu loolu waaw noonu laa ko tuddee maanaam tegañu nañ ko léegi dañ koy bàyyi euh, ba gën a waajalaat nit ñi ndax toujours dañuy def ay test buñ testé ba ni mbir mi mën naa jàll mu jàll buñ testé mën na jàll ñu téye waat ko defaat beneen liggéey boo xam ne fii ci kanam dana mën a jàll bu ngeen seetloo même Sénégal gii liggéey bi noonu lañ koy liggéeyee dañuy testé ba xam ndax mën naa jàll suñ ko yëkkatee mën na jàll téyewaat ko di yi yeneen liggéey ci ginnaaw ci ay film ak i documentaire ak i journaux ak i xibaar bu ñu demee ba yëg ñu war naa baax ñu indi bu ñu indee mu am contrat ñu delloowaat noonu la ñuy def ba keroog mu jàll ñoom nag sawar nañ waaw sawar nañu lool ci li ñuy liggéey mu des ndax ñun ñii bëgg a jàmmarloog ñoom sawar nañ ñu nit ci jàmmarloog ñoom bokk na ci jubluwaay yi mooy gëmloo ndawi jullit ñi ne culture occidentale moom culture internationale mooy yow boo xasee am valeur occidentale maanaam boo xasee gëm aaday occident foo dem da ngay mën a dund amoo problème boo demee Europe da ngay dund boo demee ci réewi arab yi da dund boo ñëwee Afrique da ngay dund yow daal kii am problème mooy kii am beneen culture bu dul culture occidentale waaye yow boo gëmee culture occidentale mu nekk sa melokaan mu nekk sa dundin foo dem da am jàmm effectivement loola fexe nañ tey ba mooy ba mooy réalité mooy réalité boo xam ni euh, boo xoolee même ci réewi lislaam yi ñii dund foofa ci ñenn ci ñoom te am culture occidentale léeg-léeg ñoo fay gën a féex kii dund te am culture islamique loolu jafe-jafe la boo xam ni xëy na alim islam yi ñu ngi ñaan yàlla mu génn ci loola ba del si wàccalam nekkoon kon nit ki gëm ni mënta avancer lu dul dafa jàpp ay xalaat ak yi dundin ak melokaan yi nga xam ni moom la na jàpp loolu it dana feeñ ci boo xoolee réewi lislaam yi tubaab yi dañ koo teel a dañoo teel xool mboolem réew ñu am stratégie ñu am taxawaay wane ni ñun dañoo war a séddoo réewi lislaam yi réewi lislaam mu nekk am na ci am na njaatigal tubaab njaatigal tubaab loo xam ni bu dee am dafa fa maanaa maanaam xeet bu gëm lislaam it teewul idaara bi moom ci kaw ak euh, attekaay doxalin yi danañ fexe ba mu nekk ci loxo ñoo xam ni ñoom ñoo leen tànn moo xam tur mustachar lay doon wala tur lu mën a doon taf ko ci ña jiite réew ma pour la ñuy doxal doon la def ci dal loolu fexe nañ ba mu am fexe nañ ba ñu jàpp ni bépp xalaat bu wuuteeg xalaat occident boobu xalaat bu suufe na te fi mu mujj mooy doon loo xam ne kenn du gis ci àdduna bi day mujj jeex day mujj raaf ba idée occident rek moo fi des di fexe it ba suñu école yi programme yi ñu fay jàngale nekk seen programme euh, ndax ki nga jàngal yar ko leen gën a indil problème tey ci réewu jullit ñi mooy école yi nga xam ne mënuñu ko contrôler tey boo xoolee fiche de renseignement yi boo jàngee fi seen renseignement yu njëkk yi sax yi nga xam ni seen gëstukat yu njëkk yi moom lañ daan bind euh, demal ci euh, euh, ñu njëkk yi Christopher Harrison bind na ab téere boo xam ne ñu ko tuddee fondamentaux de l'islam noir maanaam tey bu ñu bëggee am l'islam boo xam ni ñu ñoo koy modélé defar ko ba noppi jox ko africain yi ne lii mooy seen diine l'islam fan la ñuy jaar loolu xam nga xam-xam bu yàgg la maanaam kooku bi muy bind mi ngi nekk ci boori 1920 ngir wala tubaab bi kañ lañ kañ lañ jug ngir yàqal suñu diine yàqal suñu pas-pas boobu la jugoon benn boo xam dafa bëgg a wax ni nan la ñuy def ñun tubaab ba fexe Afrique am diine joo xam ni du bokk ak diine l'islam ju jóge ca ca naar ya comme ni ñu ko jàppee ñoom ndax diine jooju menace la ci yomb ñu fexe it nag ba dox diggante l'islam ak histoire na ñu l'islam amul histoire wala histoire ul islam histoire la loo xam ni euh, bu gaaw la rek dafa judd ci jamono màgg ci jamono dee jamono ñeneen ñoo ko rey ñooñu ko rey ñoom ñoo war a jël place loolu ñu ngi koy ñu ngi koy doxal euh, ci ay réewu islam yu bari bokk na ci li nga xam ne moom lañ bëgg a def ci ñun mooy fexe seen làkk yërif suñuy làkk loolu liñ ci jublu mooy nit ki la muy làkk moom lay xalaat maanaam nit ki ni muy làkkee noonu lay xalaate kii làkk ci wolof ci aada yi wolof lay xalaat ki nga xam ni arab lay làkk nga xam ni làkk wi da koo dugg lu jiitu aadam di ko dugg kooka ci aada jooju lay xalaat bu ko defee dañuy fexe ba nit ki di xalaat di làkk seen làkk ngir mu xalaat seen xalaat yi loolu moo tax ñun ñoo gën a dellu gannaaw ci adduna bi ndax àdduna bi yépp ñi ci jëm kanam mooy ñi jëfandikoo seen làkk ngir jàng kii jàngee làkkam dafa dudd rek tàmbalee mën a dégg xam-xam ba mu génnee seen kër dugg école ci la tàmbalee mën a xam lañ koy wax yow mi nga xam nag dangaa génn sa kër dugg école te fekk beneen làkk nga war a jàng pour jàng ci xam-xam di nga jël at yu baree bari jàng làkk woowa soo nga jee jàng xam-xam loolu nag mën na laa tardel sa wàllum jàng bu ko defee jubluwaay yi ci yu bari la xëy na ci waraqa bi dana feeñ lenn ci jubluwaay yooyu mu des nag ñu xam lenn ci yi feeñ ci liggéey boobu nga xam ni tubaab yi def nañ ko Occident def na ko te mu feeñ ci ñun bokk na ci liggéey boo xam ni feeñ na ci ñun ci wàllu diine wàllu diine feeñ na ci ne liggéeyu tubaab yi am na réussite lool ci liggéey ci réewi jullit li ci njëkk mooy feet yi boo xoolee suñu réew mi feet yu gën a bari mu ñuy feet du feetul islam feetu tubaab la mooy samedi ak dimanche samedi ak dimanche dara ñëw juróom fukk yoon ñaar ci at bi julli ci réew mi yëpp di ko feetu kenn du liggéey samedi ci ñu gën a bari kenn du liggéey dimanche bu dee samedi yahud yi ñoo ko moomoon mën nga ni Sénégal amul yahud lu dul yahud bu fi ñëw cheikh si réew mi jàll bu dee dimanche nasaraani ñu ko moom nasaraani ma dañu 3 pour cent Sénégal ma dañu 3 pour cent ñu ngi laam-laame est-ce que pour cent ci réew mi ndax 5 pour cent yi depuis 90 la woon boobu ba léegi recensement bu ñu fi def danañ génne mbooleem fi at yi waaye kenn du génne ak at yi loolu am na ñu wax ni secret la ci ñoom ndax ñu bañ a xam luñ toll ci réew en tout cas li gën a fës ci seen i jëf ñu xam ko mooy gym bi ñuy organiser nga xam ni moom am nañu yaakaar ni képp kuy nasaraan ci réew mi da ko teewe te boo ña fay teew matuñu téeméer junni maanaam matuñu cent ci jeune ak mag yi fay teew kon nga jàpp ni ña teewul ñooy màgget yi ak ñi mënta déplacé wu kon nga laaj sa bopp est ce que ñu fi nekk ci ñu dul jullit ci réew mi nekk ay nasaraan ndax mat nañ 2 pour cent ci réew mi am na seen benn kilifa gu leen ko wax ne leen man gëm naa ni euh, seen wàññeeku bi dëgg la ndax jullit ñi ñoom dañuy am njaboot te yéen du ngeen am njaboot ñoom ñaari soxna la ñuy am ba ko ëpp yéen benn soxna ngeen di am bu ngeen ko amee te gën ngeen amee benn soxna ñaari doom ngeen di am te ñoom bu ñu amee soxna dañuy am doom yu bari kon moom gëm na ni sax ci ñaar fukki at yi niñ delloo gannaaw ñoom ak ni jullit ñu yokkoo ndax sax 2 pour cent yi muy laam laame ndax yegg nañ ci wala yëg hmm? ak ñiy tuub di jóge seen diine ñëw ci lislaam loolu nekk ay awaamil yu bari yu wane ni wàññeeku gi dëgg gu wér la waaye comme fexe nañ ba dominer état ci ay anam euh, loola kenn du ko feeñal ba tax na fi fiy séddale dañuy taxaw di wax ne ñun 5 pour cent lañ ba léegi kon dëgg ñu sédd suñu wàll bu ko defee ñu leen ci sédd li ci mujjee am mooy ñu jox waa Géejawaay douze hectare yooyu quatre hectares yi ñoom lañ ko jox huit hectares ñu jox ko jullit ñi te seen seen armée yi nekk fi mën ta fees mën ta sax xaaj loolu wane néew doole bu jullit ñi néew doole kon seen feet yi fexe nañ ba imposé ko am na sax feet yoo xam ne bi ñu fi nekkee dañ ko doon def di ko ñaawale jullit ñi waaye bi ñu delloo ñoom seeni réew ba bëgg koo développé dañoo éliminer feet yooyu feet yooyu mi ngi fi des ba léegi bokk na ci Assomption dañ koy feetu suñu réew yi boo demee ci réew tubaab bi kenn feetootu ko ñoom nañu feet yu bari yi perte temps la Euh, dañ ko fee bàyyi woon ñoom waaye bi biñ delloo seen yërew dindi nañ ko ñun nag ba léegi ñu ngi am seet yooyu di ñàkk liggéey ngir loolu euh, suñu réew di gën a dellu gannaaw di gën a am ay ay jafe-jafe te fekk seen i mbir la ci wàllu woowu. <laughs> nee na question pour un champion dañu question ban réew moo ëpp fecc ci adduna ñu ni Sénégal ñu ne réponse juste loolu nag loolu nag musiba la boo xam ni ci réew moo xam ni da nekk réew mu néew doole euh, boo ko sax mi ne doole naa bi kooku kooku dañ ñu koy naxee rek waaye dawla faqiira la waaw boo naa ima la comme si di waxe kon loolu dafa nekk ci feebar yi nga xam ni am nañ ko ci feet yu bari mu bokk ci yeneen yi mooy luwaay ñu indi tey fexe nañ ba li gën a ñàkk solo ci justice noonu lañ koy tuddee donte mën naa am solo lool ci aw xeet mooy seen dundin nan la ko loi réew ma gisee mooy li ñu tuddee alqanun al usali wala code de la famille ak weneen tur yu ko mën a jox tey Sénégal code de la famille bi ñu fi appliqué code de la famille occident code de la famille occidentale la ñuy appliqué Sénégal te fekk ñooñu nekkatuñ fi jullit ñi fi nekk liggéeyoon nañ ngir wan la ni état bi même ñi ñi ñuy tuddee sëriñ ci réew mi daanaka faalam leen daf leen def ay jumtuwaay rek mooy code de la famille bi ñu fi indi jullit ñi jóg nañ def code de la famille musulman sëriñu Sénégal yëpp signé ko maanaam sëriñ ñi amul benn sëriñ bu des ñëpp signé code boobu ne baax na dañ ko war a appliqué ci réew mi état taxaw ne du ko appliqué te ba léegi mënu ci dal mooy ni kon jullit ñi li julliti Hong Kong yi am nga xam ne Hong Kong boo fa demee jullit ne ñoo fa gën a néew waaye am nañ seen code de la famille ñu leen koy appliqué ci tribunaux yi tey Sénégal gii jullit ñi gën a bari code de la famille kenn appliqué ko pour jullit ñi mu nekk loo xam ni ba léegi ñu ngi koy jàmbat waaye mënta nekk ci ñi nga xam ne ñoo yërif réew mi gëm nañ ni loolu delloo si lislaam la wala delloo si xalaatuñu lislaam la te loolu wees woon nañ ko ci réew foofu lañ toll ci nañ ba réew mi tey ci niñ ko war a doxalee ci li koy yirif euh, feneen lay jóge ci yeneen yi form lay jóge dem nañ ba ci démocratie la ñu wax ni moo gën a baax tey kuy wax da ngay wax ni démocratie gën a baax tey ku taxaw ci kanamu télé ngay intellectuel ngay cadre nga ni démocratie baaxul nit ñi dañ lay xola te pourtant am na ay bindkat ci tugal yoo xam ni ay borom xam-xam yu mag lañ bind nañ ay critique yu fës yu wane ni baaxul ñoom dañoo gën démocratie baaxul li misaal bi mooy démocratie tey euh, borom xam-xam bi jàng xam xam dundin xam réew mi ni muy doxee euh, war a mën a wax kàddoom ci ci ñuy doxal réew mi kàddoom moom ak kàddu ki nga xam ne xamul dara mës ta jàng waaye màgg na ba am fukki at ak juróom-ñett moom bu nee waaw bu koy waxee déedéet waaw moom zéro la léegi loolu <laughs> loolu ak jéng la loolu ak jéng la yoo xam ni waxuma la wedd di wedd rek attab yàlla waaye ci xeli doomu adama rek démocratie boobu lu bon la loo xam ni tey imposé nañ ko waaye du lu baax du loo xam ni kenn war na koo defante tey ci lañ yëngatu nag moom mooy doxal suñu réew yi moo tax jafe-jafe ñu am rek bu ñu xëyee am di ko gën a jafe am na beneen bu dem ci wàllu famille tey jublu nañu ci seen programme ne ndaw yi moo xam jigéen ñi euh, ak xale yi ñoom ñëpp dañ defal ay programme spéciaux yoo xam ni liñ ci jublu mooy fexe ba jullit ñi dootuñu am njaboot loolu danañ ci ñëw ci kanam bu ñu yeggee ci wàllu ndaw ñi nan la tomb bi jeexitale seen dund ba léegi ñu am ndaw yoo xam ndaw yu sàggan lañu danañ ko gis ci kanam ñu tab tuuti euh, asalibu taxrib ndax xëy na ñëw na ci asl bi buñ ci yeggee danañ gis li nga xam ni moo ci aju ñu ñëw nag ci yenn tomb yi ñuy yaatal mooy majaalatu taxrir xëy na dañ ko dugal ci biir rek ci lu mujj am luñ ci yaatal yoo xam ne dañ koo tànn ndax dafa nekk yoo xam ne dafa ñor Occident te mu am jeexit gu mag ci ndaw ñi tomb yooyu buñ ko jàngatee danañ gis ni tey bépp xaaraka islaahiya bu jub ngir delloo si waat jullit ñi seen diine delloo si ndaw ñi ci seeni aada yu rafet ci lislaam tomb yi mënu ko ñàkk bay xel ndax fii la Occident jaar def ay xalaatam ba tey réewu lislaam moo dem xalaatinu Occident moo fa féete kaw xalaatinu lislaam li ci jiitu mooy njàngale bi njàngale bi ñoom dañ koo jox cër abbé Boilat bi muy en fait abbé David Boilat nga xam ni ci Sénégal la juddoo waaye tubaab la ñi njëkk a bind esquisse réewu Sénégal daanaka mbooleem bindkat yi dellu ci taarixu Sénégal ci wàllu njàng ak euh, colonisation li mu fi def ci téereem ngay dellu bi muy bind ci wàllu école française nekk na benn histoire boo xam ni histoire bu yéeme la waaye loolu mooy tàmbali école française mooy ki njëkk a indi gannaaw bi ñu ko formé pour mu ñëw jàngal xale yi dafa dugg tàmbalee na jàngal seen làkk bëgg làkki wolof ndar mënuñu tere ko ko ne ko fii doo fi làkk wolof mooy li may wax xale yi duñ ko dégg ñu ne ko ñii ay xale lañu làkk bi nga leen làkk di gesticuler di jëf ak say loxo ak say kii bu yàggee dañu xam li ngay wax maanaam forcé ko ba gëmloo ko ni njàngale mi ngay def ci école bi dafa war a nekk ci làkk bi nga xam ñu ñoo la ko jox bu ko defee xale bi di xalaate suñu làkk buy xalaate suñu làkk suñu mbind dafay dafay dugg ci xolam maanaa xale buy liir nga gis suñu xale yi bu ñuy liir ay ay roman wala ñuy liir ay livres yoo xam ne ci boobu dañu ko bind mbind mi dafay dugg seen xol parce que loolu lañu ko jàngale maanaam ki lay jàngal français même boo demee ci école yi collège yi da nga gis ne waa ñu xorom lay doon maanaam français bi daf la koy jàngal comme ku lay jox loo xam ni dafa war a neex ci yow ba yow bis booy jàng bay liir texte tubaab da ngay kontaan ci liir bi nga koy liir loolu bu leen jàpp bu néew doole la dañ koo dañ koo liggéey ci psychologie de l'enfant maanaam ci wàllu xale ni muy xalaatee dañ cee dugal loolu ba yegg foofu kon njàngale bi dafa am programme boo xam ne moom la àndal programme bu jàngale bi mooy fexe ba xale bi dañuy rey ci moom lépp lu yëgee bu diine ci ay jikkoom ak i taxawaayam ak i njàngaleem euh, lënkaleem ak asamaan déedéet du jàng alxuraan dafa jàng dara dafa benn programme bu diine lañ koy jàngal daal mooy ay ami RMI ci ay text yoo xam ni textes yu gudd la yu amul yu benn njëriñ ci wàllu diineem jàngal ko ay xalaatin jàngal ko histoire histoire moom dañ koo dañ koo déformé wan ko ne say maam ay ay dof lañ woon dañ doon jël ay seetu di ci jaay seen i moromu nit alors la ñu jàngal ñu ñëpp ñu ne suñuy maam dañ doon ñoom ñoo doon jaay tubaab yi suñuy seen i mbokk ci ay seetu ak sàngal histoire boobu la ñu jox nga xam ne yow boo ci génnee dootoo jéppi tubaab ci mbon gi mbon ñëw jëfandikoo ngànnaay ak doole not ay nit def leen ay jaam waaye da ngay gëm ni man samay maam ndaka dañu bon lañ samay maam ndaka bi nit ñi sàmm seen i mbokk ñoom ñi ngi jaay seeni i ngir sàngara ak seet loolu dañ la jàng fekk loolu dafa am luñ ci jublu ci raxas sa xel dem ba dootoo bokk sa réew mën a dem ba yëg-yëgu fii laa dëkk ñii ñooy samay mbokk yëg-yëg boobu dootoo ko am da ngay tuxoo sa réew dem ci réewi tubaab bi dëkk loolu am na ñoo xam ni moom lañuy moom la ñuy dund tey am na jullit ñoo xam ni bokk na ci seeni yëg-yëg tey buñ sañoon seeni soxna bu ñuy am doom France la ñuy amee ji doom buñ fa amee doom bu ko defee bu juddoo mu nekk français euh, ñu mën ko askanale foofu loola lu rëy la ci ñoom te dañ ci def alal ju bare bare am na jullit ñoo xam ne seeni i kër aaday tubaab ak dund tubaab moo fa am loolu yëpp nag mbir la boo xam ne dañ ko liggéey ci ñoom ci wàllum njàng ba ñegg foofu gëm ni daal boo tubaabewut maanaam nekkoo ku ku bokk ci nit ñi nit ku silwise sax lu wax ci réew mi maanaam nit ku silwise nga xam dafa set ci boppam duñ ne kii dafa julise de dañ daal kii loolu ba dem na ci xeli nit ñi ba nit ñi jàpp loolu kon ci wàllu jàng moomu ñoom bi fi jógee bàyyi dañ fi ñoo xam ni seen liggéey dañ koo dañ ko saxal euh, gëm loo jullit ne aaday tubaab moo gën saxal leen ci loolu jàngal leen ko wuutal fi ñoo xam ne bi ñu fi jógee ñoom tubaab rek lañ jàng moom lañ xam euh, moom lañ doon jàngal nit ñi ci lañ doon fal ci lañ doon folli euh, nga xam ni ku mësaan tekki dara ci réew bi dafa fekk da ngaa dégg tubaab yu rafet moo tax nga tekki dara loolu am na ñu bari ñu ci liggéey ku mel ni docteur Khadim Mbacke maa ngi gis ci mbindam mi ngi wax lu mel noonu ci leeral boo xam ni leeral bu xóot la ci wàllu tubaab yi bi ñu fi jógee niñ fexee ba bàyyi fi ay tubaab yu ñuul te loolu liggéey la boo xam ne liggéey bu am solo la ci ñoom jógee fi ñoom doon ay tubaab yu weex waaye bàyyi fi ñu ëpp danger mooy tubaab yu yoo xam ni lañ jàng ca ñoom la ñuy jëfe ci anam yu gën a soxor ndax loolu moo fi amoon la tubaab ba daan nangu sax ñoom léegi nangootuñ ko dañoo bëgg benn nga doon tubaab boo ko doonul doo fi tekki dara xam ngeen ne assemblée nationale yàggul ku fa daan dugg ba solu costume nga dugg assemblée nationale bu saa yëre wolof lu mu cher cher doo fa dugg man ngay sol costume duróob tubaab nga soog faa dugg loolu Senghor doxal na ko fi ay at ba gannaawam ci na ci li ñuy jëfandikoo mooy suñu dundin ñu organiser ko ci loo xam ni day dëppook ñoom niñ bëggee bokk na ci palaasu jigéen xam nga jigéen ñoom yàqkat yi ñaar lañ gis ni ñoom ñoo gën a am solo ci société l'islam it noonu la gis l'islam gis na ni ñaar ñu am solo lañ mooy jigéen ñi xale yi léegi jigéen ñi ñoom ñooy jur xale yi ñoo leen di yar xale yi ñooy màgg war a yor réew mi ñii tey incha allah fii ak kanam tuuti yéenay nekk kilifa yi yéenay nekk ustaas yi yéenay nekk jàngalekat yi yu nekk imaam yi yéenay nekk sax xëy na ñi jiite réew bi loolu lañu am yaakaar ñu leen ko a yàlla te mën naa nekk il faut ñépp jug xeex ci liñ gëm ki gëm ni aaday lislaam mooy aaday ji a tasaaroo ci réew mi te lislaam moo mën a indi solution ci jafe-jafe yi ñuy dund mu jug taxaw taxawaay woowa dara mënu koo tee mu ni mën naa indi mën naa proposer programme l'islam ci liy doxal réew mi loolu dara loolu dara teewul doonte am na ay wax yu bari yu ñëw waaye li wér moom mooy dara teewut l'islam proposer programme ci wax ni nii laa bëgg réew mi doxi du ko xeex nag du ko yàkkamti da koy jaar ci jàngale ak yar waaye dana yegg bis boo xam ni mbooloo yi danañ d'accord ci ni l'islam lañ gëm l'islam moo ñu war a organiser l'islam moo ñu war a jiite te loola am na ay réew yu ci yegg am na réew yu yegg ci mbooloo ma ëpp ci réew ma jug wax na ñun lislaam lañ bëgg teewul nag buñ ko waxee Occident jug na ak ay ngannaayam song leen duma leen rey ci ñu bëree bëri delloowaat lañ fa bëgg waaye teewul nit ñi ñoom bañ leen bàyyi seen xurriya lañ ñu tuddee xurriya ñoom tuddee ko démocratie bañ ca bàyyee nit ñi nit ñi ne leen ñun lislaam lañ bëgg loolu nag processus la bu gudd boo xam ni kenn du ko yàkkam ci yàlla ngay jaar ak jàngal nit ñi kon ñoom gis nañ ni jigéen ñi ak xale yi dañoo nekk tomb yitte ñu war a jox yitte ju bare jigéen ñi fi leen joxe yitte mooy jox leen liberté jox leen koom jox leen am-am ndax jàpp nañ ni jigéen ci réewi lislaam yi bu déggalee boroom këram dafa fekk dafa amul doole danaa amul xaalis loola euh, moo tax mu nangu ñu ko jox dépense di ko jox cat bu ko defee ñu mën ko yilif waaye moom jigéen ji bis bu amee doole am xaalis am xam-xam mën a sax fay jëkkëram su boobaa amatul benn obligation ci yilif jëkkëram bu jëkkëram bëggee mu toog su bëggul mu dem yoon loolu la def ci xelu jigéen ñu bari moo tax nga gis ba ci Nations Unies créé nañ département boo xam ni euh, taxawaay mbiri jigéen a ko tax a jub ngir dooleel jigéen jox jigéen koom jox jigéen alal ngir mu mën a libre ci kilifteefu góor bokk na ci jubluwaay yooyu mooy ndaw ñi ñu xiirtal leen ci ay bànneex maanaam fu bànneex gën a bone rek ñu wax ndaw yu dem ci lool yombalal leen fo yombal foo yombal caaxaan euh, boîte yi bari caaxaanukaay yi bari concert yi bari jëfukaay yu bon yi bari ba ndaw ñi fu mu bëgg a bone rek maanaam bon jafew ko bon da koo yomb buñ nee sax bon dafa cher fii ndax da ngay fay nangam ngir ngir dugg ci te ndaw li amu ko maanaam UNESCO wala Oxfam wala yenn kii organiser po boo xam ni kenn du ci fay dañuy fay ay waykat ne leen dem leen ci terrain sangam géejawaay wala dem leen ci terrain sangam bërëb sangam ngeen def fa concert public ndaw ñi ñëw teew ci ñu foloo leen fecc loo leen wayloo leen bu ko defee loolu euh, participer ci seen liggéey bokk na ci néewal sëy sëy l'islam bu jaar yoon nga xam ni nit kii day am soxna euh, ba mu ci tollee kuy toll ci jàng nag ci jàng nga toll boo génnee ci jàng nga toll ci liggéey boo tollee ci yor kër ba foofa sax dañ fay jafeel xam ni sëy jafe euh, góor ñi bari lool amuñu soxla jigéen ñi bari lool amuñu jëkkër bu ko defee loolu fu mu am kooku moom fasaad kabir mooy am maanaam ndaw ñi bari nañ nekk ay góor doon ay mukallaf Euh, amuñu soxna jigéen ñi bari nañ lool doon ay bu kàllaf amuñu boroom kër société bi mel noonu boo ko boo ko boo ko boyalee lii am mooy euh, yàqute gu mag mooy am comme ni ngeen ko gisee tey bokk na ci jafe dund kër yi ba divorce yi bari tey kër yu bari boo fa demee dafa bari divorce ndax li war a téye kër muy kilifteefu góor moo amatul foofu li war a téye kër muy mën-mënu góor lañ ko xañ danañ gis ci kanam ne loolu bokk na seen liggéey bokk na seen liggéey kon fexe ba divorce bari tey ñu bari bu ñu amee problème ci jeunes yi ci seen couple dem tribunal ki ngay njëkk a mooy juge bu wax sa ji sa soxna wala avocat ne ko boo ñëwee mën naa laa layoon ba nga libre nga jël say doom ñuy dagg sa salaire jëkk jël a jox bu ko defee moom gëm na bu amee borom kër li mu njëkk a def mooy euh, tappaas ko bu ko defee bu ci amee ay doom ñu fase ko bu ñu ko fasee mu yóbbu ko tribunal su ko yóbboo tribunal ñu jox ko doom yi ak lépp bu ko defee moom jël xaalisu jëkkëram di ko jox bu def ci lu ko neex loolu lañ gëm loo ñi te ñu ngi koy ci seen programme la mi ngi nag tax ndaw yu bari di jeng xam nga ndaw kër dafa bokk ci li mën a jaxase bopp ndaw Euh, wax naa la ki toll ci jàng day jàng bu weesoo jàng toll ci liggéey day wutum xëy mën naa am lu doy ay soxlaam mën naa am lu bañ a doy ay soxlaam bu tollee ci am xëy li muy xalaat mooy samp kër sanc kër nag ñu def ci ay problèmes yu bari yoo xam ni yomb ci ndaw ñi problème bi njëkk mooy fexe nañ ba ba mu jafe tey ku bëgg a takk soxna boo amul tawfiq lu cher lañ lay laaj lu cher loola culture la buñ def ndax yi war a aju ci am na ci loo xam suñu wàllu adara nag du jugewul Occident mu jafe waaye moo duggee ci sëy bi dañ naan sëykat dugg ci yomb na waaye génn ci yombul génn ci yombul mooy jigéen ji saa yoo bëggee mën dara toroxal ci biir sëy loola ñoom seen culture la dëgg la nag am nañu ay réalité sociale ñoom yoo xam ni moo waral loolu ndax seeni góor dañuy ay góor ñu sàggal yu buggul la yor kër yoo xam ni dañuy am jigéen ji mooy ànd ak moom ab diir bàyyi ko ngir mu dem toroxi su boobaa ñoom xëy na def nañu ay conditions yoo xam ni ci la ñuy sàmmee seen i jigéen waaye teewul nag bu ñu tasaaree solution yooyu ci réew yoo xam ne amuñu problème yooyu dañuy tasaare waale problème yi en même temps bokk na ci seeni i ndaw li nga xam ne ndawal jullit la ju am diine léeg-léeg jot ci koom da koy jafe maanaam dañ koy appauvrir loolu système la maanaam bu leen jàpp ni dafa simple ngeen gis shababu daawa wala shabab yi nga xam ni dañoo am iltisam tuuti ndaw yi nga xam dañoo xaw a bëgg seen diine ñu xaw a nekk ci jafe-jafe adduna maanaam loolu ju jubluwaay la maanaam dañoo bëgg yow mi nekk ndaw bunt yi nga war a amee wërsëg yëpp ñu tëj ko lu dul bunt yi xaraam nga xam ne yow bunt yi xaraam da nga ibbi benn ñu ngi la société ngi nii kat waaye moom day jaay sàngara léegi yow soo bëggee nga dem di foofu nga ne ah man damaa am diine de ñu ne ah waaw am na benn société bu fi nekk de waaye moom cigarette lay jaay nga ne ah man de mënumaa liggéey foofu damaa am diine de ñu ne waaw kon nag kaay kañ lebal la xaalis nga ne fi ñu may lebal la xaalis ñu ne waaw benn microfinance bi ngi nii boo xam ni boo lebee après booy fay da ngay teg nangam nga ne ah man de loolu riba la kon du ma ko jël ñu ne waaw kon léegi yow loo bëgg yow bëggoo liggéeyee sa boobaa bëggoo liggéeyee ngeen baaw tudd turi bëggoo liggéey bërëb sàngam bëggoo ñu lebal la xaalis ci lii ah sam njàng bu sottee bëggoo liggéey marketing ndax boobu da ngay jàkkaarloo ki jigéen di jàmmal ak ñoom bëggoo kon yow léegi loo bëgg bu ko defee ndaw loolu ngir mu dund ci bii amuñ occidentalisé boo xam dafa mujjee nekk bii a occident lu jafe-jafe la te laaj na fekk xaas kooku la dañ koy bàyyi ñiy gëstu ci wàllu woowu waaye laaj na fekk xaas ngir dund ci bii aboobu bi dundin wu jafe la te tey jural na ndaw ñi jafe-jafe yu bare bari këri ndaw yu bari ñu ngi tas di yëngatu ngir ñàkkum koom te li ko yëngal bokk na ci euh, sabab boobu nga xam ne ñu ngi koy dund mooy dund ci bii boo xam ni la muy la présenté ak lañ leen jàngal bokkul loolu nag jafe-jafe la joo xam ni mbir yi moo ko indi léegi nag ñu dem ci tomb mujj bi mooy naka la ñuy jàmmarloo ak loolu ku nekk ñun bopp lii am tey ji réalité xam nga waaqe al waaqe yufidu nafsahu dañuy wax ni waaqe moom mooy imposé ko léegi waaqe weddi ko loolu du xel aussi wax ni mbir mi amul amul solo nekku fi loolu it du xel mbir mi foog nga nangu di am na tey suñu société bi ñuy dund euh, ndax ci laa wooy yaatal naa gëstu bi moom dem ci yeneen réew yi waaye suñu société bi ñor ci lool bi ñuy dund euh, phénomène wala zahira tahrir daf fee am mooy société occidentalisée lañu donte am na ay gox yu fi des di sàmm ay aada ay gox yu néew yoo xam ne ñi ngi des ba léegi ci euh, aaday islaam ji nga xam ne moo fi jiitu aaday tubaab euh, waaye gox yooyu néew la ñun ñi dund Dakar bu dee ñun ñëpp Dakar lañ jóge ci lu gën a bari ak ñenn ñuy dund ci capital régional yi ñun ñëpp xam nañ ni ci ay milieu occidentalisé la ñu dund léegi nag bu des naka lañuy def ba benn loolu du ñu lor wala bu ñuy lor lor gi néew wala bu ñu loree ñun du lor suñu njaboot buñ ko yàlla déggee loolu ay mbir la yoo xam ne lu ci nekk war nañ ko bàyyi xel bi ñu njëkk mooy yittewoo wàllum njàng loolu nag ñu yittewoo projet de société li ci war a jiitu mooy projet éducatif loolu moo xam état la moo xam xaraka islamiya la moo xam xaraka islaaxiya geneen gu mën a doon boo xam ni xëy na sax du lislaam la jublu waaye defar xëy na nee na moo ko tax a jub amu ci benn bu war a jub am programme doxal société te amoo programme mu jàng ak jàngale lu mel ni xaraka bi nga xam ne moo ñu woo fii bokk na si ku gën a xame mooy jàng ak jàngale ndax jàng ak jàngale fu mu amul mënoo faa soppi dara ndax ndaw ñi nga xam ne ñoom nga yor benn nga jàngal leen def ci ñoom ko ak pas-pas bi nga xam ni moo jaadu nga def ko ci ñoom wala jàngaloo leen ñeneen jël leen jàngal leen def ci ñoom pas-pas bu la neexul te doo ci mën dara nga jur sa doom doon imaam wala nga doon boroom xam-xam yóbbu ko ci école ñooñu nga xam ni ay pas-pas yeneen lañuy ñuy jàngale ak i nekkin mu màgg ci sa biir kër pas-pasu ñooñu la yor ak seen nekkin bu deful dàgg. boo njëkkantewul ak ñoom ci ñoom ci xale yi xëy na mën ngaa mucc ci njëkkanteeg ñoom ci xale yi ci def ci ñoom loo xam ni dindi ko du yomb waaye boo leen gaaralee seen yar yaral ma sama doom te bu mel ni yow loolu dañ ne shibu mustahil la yaral ma sama doom waaye nag bu mel ni yow loolu daal dañ shibu mustahil kon wàllum jàng ak jàngale loolu dañ cee war a sonn jàng ak jàngale bu ñu ko waxee mooy fonk xale xale kenn du ko xeeb njàngale lislaam gis nañ yonente bi alayhi salaatu wasalaam formation xeebu ci xale abdullah ibn abbas bi mu koy forme ci wàllu pas-pas booba xale bu ndaw la yéen ñëpp yéen a ko mag ñi fi toog ñii fii ñëpp ñoo ko magoon waaye formé na ko ci tomb xam-xami pas-pas yoo xam ni tey mag yu bari ñu ngi fii ci réew mi xamuñu waaye xam googu mu ko xam dimbali na ko ci lu baree bari yeex na it ay nit ñu baree bari ay nit ñu baree bari bind nañ ci ay téere mu yaatu lool ci xadisam boobu nga xam ni jàngal na ko ci wàllu pas-pas wàllu information tey ci liy yàq suñ kër yi la bokk li tuddee i'lam média média xam ngeen ni lu bari lu bëgg jàllale ci réew yi ci film yi lay jaar tey mbirum borom ñaari tur yi ñu tudd léegi sànq biñ bëggee mu jàll ci senegal dañoo am ay film yu ñu dawal yoo xam ni timis ak gée kër yépp dañuy sukk mel ni ñu sukk ci kanami xërëb di seetaan film yooyu te léegi nga ay nit ñu toog li juug ci kanami tere yi sa xel dem ci waxi Ibrahima dem boo xoon jaamu ko di xërëm yi ma xaafi yi tabaasilu la si antum laha aakifun waaw ñëpp a ngi ne groupe rek sukk jàkkaarloog tere yi bàyyi yaay doom mag ndaw ñëpp ne groupe jàkkaaroog télé yi ñu dañu woon ay film yoo xam lañ ci jublu mooy raxas seeni xel film yooyu da nga ciy seetlu léeg-léeg ci ñi ko gëstu ci wàllu tarbiya ne bokk na li ciy def mooy borom ñaari tur borom ñaari tur baat yu gën a siiw te muy baat bu ñaaw nag góor lay doon ak jigéen maanaam góor jigéen lañ koy wax woo xam ne ci biir film bi victime lay doon maanaam dañ koy dañ koy tooñ tooñ bi ñu koy tooñ nag ñii seetaan ñëpp dañ koy jëm a farle bu ko defee bu bu film bi jeexee yëgoo ko waaye am nga yëg-yëg bu bu jaar yoon bu baax boo xam ne yaa ngi koy yëg ci borom ñaari tur boo xam ne dañ ko doon tooñ di ko tooñ ci film bi di ko toroxal ba léegi yow nga mujj jàpp ni kii dañ ko war a dimbali bu ko defee loola bu film ba ba jeexee am nañu benn tomb buñ def sa xol léegi noonu lañu ñu continuer bu ñu demee boobu jàll ñu indi benn xew xew-xew yi mooy ah démb de dem nañ mbaaw gis nañ fa ay borom ñaari tur ñu ko doon def takk sëy bu ko defee journaux yi xëy bind ko coow li nekkul ñu ni jàpp nañ leen ñu ngi leen di atte tey suba gannaaw suba coow li nekkul nit ñi liñ ci jublu du xeex loola liñ ci jublu mooy lépp lu nopp miin lépp lu booy nopp woyof ci xel maanaam lépp lu booy say nopp maanaam lépp loo xam ne da koy wax di ko waxaat bu yàggee nga dégg benn waay ne waay bàyyi lañ ñi way li ñuy def seen affaire yi bopp la lu ñuy seen yoon yéen bu ko defee nga dem ba mbir ma doon lu ñu miis doon luñ tàmm nga xëy rek ñuy la nommé nañ benn waa joo xam ne ambassadeur du Sénégal la di doxal Sénégal ci ay mode ak yooyu moom naka ne borom ñaari nga dem ba yàgg nag ñuy leen léegi am nañ fi am ndaje moo xam ne ci réew mi lañ ko defee annoncé woon nañ ko nag buñ ko annoncé nit ñi jug jàmbat euh, ñu xam ne mi léegi jotagul doon te annonce boobu amul benn solo ci ñoom ndax mënoon nañ ko def te kenn du ko mënoon nañoo ñëw wàcc wàcc aéroport dem ci benn hôtel def ko fa waaye loolu du jubluwaay bi jubluwaay bi mooy dañoo bëgg indi dajja maanaam coow li lañ bëgg indi ndax coow li jàpp jàng nañ ñoom ci wàllu psychologie ak wàllu sociologie ne coow dafay indi débat toujours maanaam maanaam euh, mbir boo ko yëkkatee da ngay créer débat foo waxee débat nag am nañu fi ànd am nañu fi àndul léegi ñi ànd buñ taxawee indi ak ñi àndul taxaw léegi nag ñi ko wax léegi xewaar am léegi bu xewaar amee bu yàggee ki doole gën a mën a taasiir kooku mooy feeñal mbiram kon ngeen jàpp ni yàggul dara Sénégal dana am lu mel noonu dana am sax loi boo xam ne mën naa taxaw wax ni ñii bu leen kenn def dara ci réew mi lañ bokk ay doomi réew mi dem ba yàgg sax ñu ne léegi am nañ sañ-sañ yi dañ leen di maye comme ni ooyee ceeni réew dem ba yàgg sax ñu am nañ sañ-sañ dañuy adopté ay xale ku jur sa ko dem ba yàgg sax ñu ni nag mën nañoo doon ay kilifa ci réew mi comme ñëpp nekk ay ministre nekk ay député euh, dem ba yàgg sax ñu ni wala iyaazu billah même yenn barab yi sax war nañ fa mën a jiite comme niñ ko français yi jéem a gëmloo fi mu ne nii ne am na benn imam bu nekk Paris boo xam ne loolu la voilà ay waxi caaxaan lay wax ko waaye nekkul dëgg moom mën nekk ci loolu kon loolu bokk na ci wàllum jàng ak bi maa nañ ko sax nag waaye programme ak njàngale mu yaatu def ko barnaamij bu wóor wutal ko ay tom ak i maayir ngir mën ko taqyim ne nangam bëgg nañ feeg nangami at ñu am nangami école yi l'islam ci réew mi nu ñuy def ba am ko programme bi lii la budget bi lii la taxawaay bi lii la ñii ñoo koy def ñi ñoo ciy taxaw loola yaakaar naa ni euh, jot na amoon na sax na xëy na waaye jot na ñu gën ko jox solo sàllaaw buñ bàyyi woon sax njàng mi jëm kaw mën nañoo sax tëj suñu programme ci njàngum supérieur wala njàngum euh, secondaire waaye ñu concentrer effort ci njàngum primaire ak moyen secondaire fexe tey ba xale bi bu génnee foofu dana mën a sax dem ci yeneen école yi yeggali fa jànge waaye fekk ñun fi ñu soxlaa xale ak fi ñu ko war a aada ak fi ñu war a defee ci moom ay jikko ki xam-xam fukki at yooyu may na ñu def ci moom li ñu bëgg maanaam juróom-benni at ak ñeenti at doo ko wala muy fukki at def nañ ci moom loo xam booy wax ak moom moom tul na li nga wax moom dégg ko sax waaw dana jàng nag bind waaye la ngay wax ak moom mënu ndax fekk na am na lu mu gëm ba noppi waaw mu goog mu goog dégg nga ne doon waa d'orientation bees yi mooy maintenir xale yi 10 ans loola beneen programme ñoo xam ni ni mu ko waxee dañoo am seen programme ñoom it gis ni 10 ans yooyu ci ngay formaté xale parce que soo ko bàyyee li nga bëgg moom dana ni mel waaw moo tax ñu bëgg orienté maanaam fixé xale bi mu des ci école bi pendant 10 ans liñ bëggoon ci réew mi dafa am échec loolu tubaab bi nangu nañ tubaab bi liggéey nañ ci réew mi liggéey boo xam ne liggéey bu xóot na mais gën nañ ni liñ fi liggéey dafa am échec donte échec bi nag ci wàllu sax gis nañ réussite la moom parce ñoom xamoon nañ ni l'islam bi ñu créé le Sénégal xamoon nañ fi mu jëm xëy na l'islam boobu ñu créé Sénégal mi ngi tàmbalee am échec ndax am na ñuy génnee ci biir ñooñu di jàngi xam-xam di ko jëlloo si waat ci biir mbooloo yi loolu rek la waaye programme éducatif bi ñu amaloon Sénégal programme dafa am échec mooy ndagate parents yu bari ba léegi Sénégal waajur yu baree bari yóbbuwuñ seen doom ci jàngum école école tubaab ñu ngi ko yóbbu ñii ci ñii sax ci daara yi ne ànd ak ni métti nag jafe na yéen ngi dund lu métti métti waaye nag toog leen fii moo gën a mucc ci yéen comme état faalew leen toog leen fii moo gën a mucc ci yéen politique boobu état bi dañu di ko def maanaam tey boo xoolee privé catholique li ñuy am ci ndimbal ci état ci réew mi benn privé l'islam amul dégg naa ci ministre bi yoroon éducation nationale Iba Der Thiam moo wax ni bi muy ñëw éducation dans les années 80 na 86 87 mu ne mi ngi fekk budget enseignement privé état bi li muy dimbalee privé yi mi ngi nekkoon cinq cent cinquante millions non sept cent cinquante millions mu ne sept cent cinquante millions yooyu école privée catholique yi fi nekkoon jamono jooju ñi ngi daan am cinq cent cinquante millions école privée bi fi gënoon a mu doon Azhar bu sëñ Mourtala ngi daal am sept cent mille par année mu ne bi mu gisee ñaari chiffres yi dafa jàppoon ni comptable dafa juum mu woo ko ne ko yow da ngaa bind fii 550 millions bind fii 700 mille est ce que fàtte woo ay zéro bu ne ko noonu fàtte woo zéro yi effectivement la waaw bii 550 millions la ngeen di jox ñii 700 mille francs la ngeen di jox loolu moo jur li nga gis yëpp ci investissement ñu am xam nga 87 ba bi jullit ñi tàmbalee yow yàggul loolu xëy na président bi jiitu sax moo xaw a am yu mu yàq moo tax ñu bari mere ko ci loolu moom xëy na gëmul woon sax seen leneen waaye nag gëmoon na amoon na ñàkk maa am foofu moo xaw a yàq sax seen politique foofu waaye jàppal ni kon 86 87 ba 2000 liñ daan am ci subvention ay milliards waaye léegi milliards yooyu moo tax kon ñu tabax école yi gën a cher ci Sénégal foo dem ci Sénégal terrain yi fa gën a am solo yi fa gën a placé ñoo ko jënd ba noppi miire yenn yi sax jënduñu ko dañ koy lijjanti ba ñu jox leen ko ba noppi ñu miire ko ci lu gaaw miir bu am solo boo xam ni ay millions lañ ci def boo demee fii ci wàcc ci bi lañ fa miire mat na mat na 10 000 léegi loolu nag euh, mbooloo buñ ko jox nga xam ne ay gëstukat dem nañ ba nii li ñu am ci suuf ci Sénégal bu ñu leen ko séddale woon ku nekk ñoom di nga am 200 mètres carrés yoo yoo xam ne mu nga ci tabax kër loolu moo wane ni kon réew mi xam mbir yi ni mu demee luñ fi toll bëgguñu nit ñi xam ko liñ fi am bëgguñu ni ñi xam ko te fexe nañ ba ña fa jiitu woon di ay tubaab yi leen fi indi ñoom ñu ngi leen di protéger fu ñu toll. ba lu leen naqare tubaab bi lañ koy wax état bi bu leen di wattu sax tubaab yi moo tax bu leen wattu loolu mbir la yoo xam ne mi ngi fi jullit ñi nag amuñu doole ñu toll noonu fii ci réew seen i investissement xanaa lu ñu defal seen bopp ak leen seen i mbokk dimbale waaye amuñu investissement état bu toll noonu nga xam ni mën nañoo jënd ay hectares yi hectares tabax ci ay école kon ñoo war a am programme ñoom bu ñu financer seen bopp xam fu ñuy samp ay école def fa programme yoo xam ne buñ ko jàngalee fi ak ay at dana jur ay nit ñoo xam ne ñu xam seen diine lañu ñu tul lañu ci leen Occident bi nga jàngal bokk na ci yar bakkan yi aussi maanaam nit ñi ñu tarbiya leen bañ a yam rek ci jàngal leen xam-xam shabaab yi ndaw yi bokk na ci leen feebar tey yàq bi yàq seen i bakkan ba lu neex rek lañ bëgg xam nga ndaw loo xam ne lu neex rek la bëgg maanaam dund gu neex jëf yu lekk bu neex naan bu neex maanaam saal mi sax tey boo boo fayoon ventilo yi ñenn ñu commencé jàmbat bu nga génn ci biti euh, loolu dem ba nga tàmb loolu da dem nag ba sa bakkan daf lay daf lay jiital dem nañ ba ndaw ñi amatuñ confiance seen bopp tey euh, gëmloo nañ ndaw ñi ne bu ñu génnul Afrique dem Occident luñ tekki tey ndaw jaral na ko mu ne damay dem Barcelone baa ma dem Barça nga xam ni phénomène la phénomène bu la boo xam ni euh, ci wàllu société lu war a indi ay questions yu bari la mooy ndaw li dem ba yegg foo xam dana benn ma dem Barcelone te Barcelone boo fa demee am na ay faqir yu fa nekk am na ay fuqara yu xam ni amul dara ay tubaab yoruñu dara amuñu luñ lekk amuñu luñ naan ñu ngi fanaan ci mbedd yi te ay këyit tubaab lañ yor fa lañ juddoo fa lañ màggee. ñu ñu tuddee leen ay SDF yow ndaw li nekk fii nga ñàkk siqa ci sa bopp ñàkk siqa ci yàlla ba gëm ni dem foofu war na laa jaral dee am na fa gox yoo xam ni tey am na ndaw yu jóge woon fii jël ay gaal bañ fa demee dañ leen faa parqué policier di leen surveiller suba ngoon kenn du leen génn nag ndax seen loi mayewul loolu nee waaye ndaw yooyu lañ fa nekkee mooy drogué wu naan sàngara seen mbokk ñàkk nañ leen boo demee da nga leen di gis foofu benn zone boo xam ne da nga fa ñu parke leen du ngeen fi génn nag waaye fa la ñuy sotti mbalit yi maanaam comme ni babas mel fii noonu la mel babas la fa la sotti mbalit yi bu ko defee ñu dem foofa récupérer ay mbalit ak yooyu mooy seen liggéey ndaw loolu tey gëmoon na ni bu demul foofa du tekki te demoon foofa ak torox la ko jural waaye dañ koo liggéey ci moom ba mu ñàkk xa ba gëm ni bu demul foofu du tekki dara mënta liggéey ci réew moo ko jaral mu jaay bakkan kon defar bakkan yi defar xel yi nit ñi nangoo gëstu xale day yar boo xam ci nangoo gëstu boo nekkee xale jàng war ngaa yar sa bopp ci nangoo gëstu bul yem rek ci li ngay jàng ci école bi boo delloo sa kër del gëstu tey am nga ay juma am nga jumtuwaay yu bëri internet jumtuwaay la boo xam ne mën naa jëriñ mën naa lor kuñ defar rek moo mën a dem ci internet xale buñ defar xam dañ koo jàngal yar ko moo mën dem ci internet jël li fay njëriñ bàyyi li fay lor jël lim jàppee lu baax ndax loolu lañ ko yare bàyyi fa la nekk lu bon te xam ni bari na fa waaye moom lu bon loola yitteelu ko ndax yéemu ko te nit boo xamee sa boobu mbir la ca yéeme da lay day daal di ñàkk yéeme ci yow boo xamee ni ñu bon lañ lu ñàkk diine lañ ñu ñàkk ngor lañ euh, yu bon yi ñuy def tasaare rek mon moo lañ ci moo lañ ci dugal loolu lépp nga xam ko ñu yar la ci ba nga xam tubaab mooy kan li ma ci jublu waxoon naa ko mooy aada ji ak diine ji waaye jubluwuma ci der bi maanaam ñu racisme boo demee ba xam loola seen influence yi ak seen yàq yooyu def ci biir sebakaan yooyu nga xam ni liñ ci jublu mooy tëj adduna bi yëpp ci mbon yow loola dootu la dootu la yàqal waaye njëriñ la ca nekk nag ci xam-xam da dugg di ko jëriñ loolu defar sa xel ak nàmm ko mooy tax nga mën a yegg ci yeewu boobu kon ndaw ñu war nañu defar seen xel di ko jëriñoo di ko jëfandikoo di xam li leen wër di ci joxe ay atte li la wër nga atte ci xam ni kat aada ji ñu may présenté du aada ju baax melokaanu ñu may présenté du melokaanu baax ndaw lu war a am ful la war a am fayda te am ful ak am fayda wolof ni mu ko daan fire mooy yeew sa ndigg waroon lay wax na nga na nga yeew sa ndigg mooy na am fulla na am fayda ndaw dem ba mosul yeew ndiggam maanaam ci ci waaye ci ci biti mbir mi sax léegi tubay juy wasatu lay sol maanaam tubay joo xam dafa tekki seen tir bi xotti xotti ginnaaw gi feeñ muy doxee noonu ba noppi nag mu jàpp ni mi ngi ci dara maanaam ndaw lu mënta yeew ndiggam lu muy mën a yore kër léegi nag xel yi dem ba mel noonu <laughs> waaw mu ko xel yi xel yi lang bu ko defee euh, tubay ji lang loolu mbir la boo xam ni euh, zahir la bu doy waar ci comportement ndaw ñi waaye ñu mën koo dindi nag ci defar seen i xel wala nit day am fulla tubay boo koy takk da nga koy yeew loolu loolu mag ñi mag ñi mag ñi dañ koy def ci bopp nit ñi maanaam yeew sa tubay takk ba mu dëgër loolu ci mandargay Pastef la waaye jël sa tubay bàyyi ko du watatu loolu man da nga ñàkk fajal koo gis mu mu koy def kooku ñàkk fajal lii nag li gën a yéeme mooy dañu ko gis ci école yi tubaab yi école yi école gis ay xale sol ay tuddee jëngal wàcce ko waaye gis naa ko léegi ci école franco arabe yi gis naa léegi ci école franco arabe yi ay xale yu sol ay tubay yu ñuy wàcce gis naa sax ci yenn école yi nga xam ni ay nit ñu am bac ñu fa a jàngi gis ay xale yu sol tubay yu rëy Eh, sol ay mel nii ñu jugee beneen réew te yow nga ni lislaam ngay jàng si loolu dafa am yoo xam ni dañ ko war a dañ cee war a yee nit ñi maanaam du sax xas la wax na ni def waaye nag nga xam ni man su ma su ma amee yitte ngir yegg borom sàngam am na melokaan yoo xam ne waratuma ko am maanaam waratuma sol lii waratuma mele nii waratuma doxee nii waratuma waxee nii sax nga xam ne yow da ngay soppi sa bopp ngir waajal sa bopp ci masuliyaat yi rëy yi nga xam ne moom nga bëgg a yëg ñu ngi am na xalaat yu yaatu yu tasaaroo yu baaxut yoo xam ni euh, ñeneen ñi ñu ngi koy tasaare ci lislaam ak euh, julli ñi ni ko war a déggee jàppale ne lislaam moom julli la ak woor ak yem foofa rek amul benn xalaat amul technologie amul xam-xam amul dara ba julli ñi jàpp ne bu bëggee xam technologie da ngay dem xarb jànge ji fa loolu euh, mën naa nekk solution ci ñenn ñi waaye mën naa yàq lu bari bari ci ñeneen ñi dégg naa benn daa yi mag koo xam ni ci ñi nekk ci loolu xarit la wax ni moom li ko gën a yéem ci yenn réew yi ci xaqiqa murra dëgg dëgg bu naqari la la mooy nag naka ngay amee sa doom yar ko ci bii a boo xam ni bii a bu ñu bu ñu nose la ci classe bi góor du jox sub jigéen ci mbedd mi jigéen ñi dañuy muuru euh, moom amul benn fitna bu muy gis boo xam ni mën naa tampoog pas-pasam ak la mu jàng bu ko defee mën a dund ci loolu nga bàyyi ko mu am bac fii xale di gën a nekkee ku am yëg-yëg ci yaramam ak yu mel noonu nga jël ko bi mu amee bag rek sànni ko ci bii ab boo xam ni moom dafa sore lool nga jël sa doom jëlee ko Arabie Saoudite mu am bag nga yóbbu ko Angleterre wala nga jëlee ko fu yóbbu ko États-Unis léegi kooku lu mu foo mën a jëlee ci yàqu yow waajur yaa ko yàq ndax waajaloo ko ci benn fitna waajaloo ko ci benn fitna moom dañ koo waajal ci mu ci ci nëbbal ko fitna ba mësta jàmmaandoog fitna ba jëflante ak moom léegi yow nag nga jël ko yóbbu ko ci bii ab boo xam ne lépp fitna la bu fa yàqoo mbaa bu fay drogué wu mbaa bu fay def naka su du noonu yow waajur bi ko yóbbu foofu yaa ko def loolu te yaa ko donte am na ci masuliya ndax magum jëmm la loolu nag mën naa dal ñu bari ci ñun euh, di ci bii ab boo xam ne bii ab mucc la jékki-jékki ci bii ab boo xam ne bii abu yàqu la loolu mën naa yàq ñu baree bari ñoo xam ne yàq na sax lenn ci jàngikati lislaam yi euh, jugee bërëb dem bërëb fekk fa yeneen aada far nga ci aada yooyu ba ba far cee yàqu loolu am na tomb bi nga xam ne moo ci topp jiitu ci bi mooy euh, bu ñuy wax wàllu garab nag ak seen wàllu aada ak yooyu jubluwuñ ci ne nit ki war sa jàpp dara ci aaday tugal ak yu mel noonu ne seen lépp bon déedéet nit ki danga war a mën a segg maanaam xel ak xam-xam bi ñu lay jox maanaam seggukaay la boo xam ne war nga cee segg li baax nga bàyyi mu ñëw segg li bon nga sànni ba tax na kon mën ngaa jëflante ak ñoom tubaab yi mën ngaa wax ak ñoom mën ngaa làkk seen làkk mën ngaa jëflante ak ñoom ci wàllu dund waaye teewul nag li baax ci ñoom ngay jël li baaxut ñoom nga jël la loolu ràññee moo koy mooy tax nit jeg fa li mujj nag ay laaj la yoo xam ni euh, xëy na fii am yi jëmoon mooy fii am yi gën a ci yéen euh, maa ngi leen wax ci tàmbali gi ne tranche bi may waxtaanal xëy na euh, jàppoon naa ñu gën a kawe tuuti ci wàllu at waaye teewul thème bu mel nii mën ngeen ko jëriñoo dafa am thème bi dafa tudd loo xam ni réalité la waaye am loo xam ne xëy na it mën naa doon menace ci ñenn ni bu ñu bu ñu dégg bu ñu amul waay ma posé ko ci ay question yoo xam ni damay bàyyi mbooloo mi tontu ci Sidi Yaxya xëy na mën nañu cee jox ay leeral ma ne hal nafyu taqribi zariatun ila taarib léegi tey ndax buñ ne dañuy dàq taxrib occidentalisation ndax loolu dafa war a indi ci ñun ñu am euh, comportement orientaliste ci wàllu ne dafa war a indi orientalisation loolu question la boo xam ni mu sax affaire yi ñu ngi koy posé question seen biir. waaw mu ngoog ndax bu ñu dàqee tubaab tubaab lu dañoo war a arab arab lu loolu question la boo xam ni ndaw yi sénégalais la koy posé wan hal li shaab al muslimi sénégalais dawrun fi taqdimi thaqafatihi lil aalami al garbi wa sharqi aw daw lahu dawrun tabiiyun fa xasbu mooy yow mi nekk ndaw nekk sénégalais moo xam africain moo xam leneen ndax dëgg la fawaariq yooyu am na maanaam ay fawaariq la yoo xam ni dafa am lu mu wund ci wàllu aada gis nañ yonente bi alayhi salaatu wasalaam al muhaajiruun al ansaar ñii waa Makka lañ ñii am na tur woo xam ni ba ñuy dund yëpp moo leen màndargaloon teewul dindi ñoo ko bokk waaye am na ci ay aada yeneen yoo xam ni bokkuñu ko gis nañ ko sax ci ay nettali yu bëree bëri waaw ndax yow mi nekk fii nekk ndaw ndax amul dara loo mën a présenté euh, Occident ak Orient ci sa aada ak ci sa nekkin loo xam ne war na ko mën a jël moom boo lekk ci boppam wala yow da war a toppee rek yow toppee rek nga am comme kii benn nga nekk occidentalisé wala nga nekk orientalisé ñetteelu laaj bi nag mooy ndax am na shaxsiya islamiya xaqiqiya maanaam personnalité musulmane boo xam ni nit ki day am day nekk jullit jullit bu wér boo xam ni nag du bokk ak personnalité arab ci wàllu thaqaafaam ak aadaam ak i taqaalidam ak i meloom wala loolu mënta nekk lii ay question la yoo xam dañu koy posé ndax euh, boo gisee ñu indi ko su forme de question dañ ñu cee interpellé lu bare bari ci xëy na ay séminaire yeneen yoo xam ne dem nañ ko dëkk yoo xam ne du réew mi waaye muy ay réew yoo xam ne du ñu réew yi arab te gën ni ñoom war nañoo dund seen lislaam te du tax ñu doon ay arab mën nañoo dégg làkk mën nañoo jàng diine ji waaye am na ci seeni i aada yoo xam ne dañ ko war a sàmm seen aada yu baax la yu bokk seen réew am na ci aada yu jóge ci réew yoo xam ne waruñu ko jàpp ndax aada yooyu jàpp nañ ni baaxut wala bokk yi ñu am ñoom moo ko gën lan mooy alxaddul fasil waaye loolu euh, laaj la ñépp xam nañ ni lislaam mënta tàqali ko ak li feeñ tey ci aada yi lu bari ci réewi arab yi waaye ndax am na xadd tey boo xam ne buñ ci yeggee dañ naan ah lii kat lislaam la waaye lii moom aada la bu ko defee lislaam gi ñun dañ ko jël ndax ñoo ko bokk waaye aada ji nag dañ leen ko bàyyi ndax ñu suñu aada ci lii lii la te lii xam nañ ni juyeewul ak mandargay lislaam ak i njàngale loolu ay laaj la yoo xam ne dama koy bàyyi noonu du ma ko tontu xëy na gëstukat yi mën nañ cee tontu buñ ci tontoo nag ñu ñu baaxee ñu ko ndax baxte bi des na loo xam ne war nañ ko mottale te ci ñetti laaj yooyu ci lañ koy mottalee euh, amaat na biñ ko waaje woon euh, ci làkk bi ñu ko waaje woon euh, indiwuñ lépp ci làkk wolof bi waaye xëy na euh, jëriñu ngeen ci mbind mi bu amee ay lenn ci njumte ngeen xam ne doomu aadama mu matul waraqa bi lañ koy jox sax kilifa yi ngir ñu corrigé ñu ko balaa ñu koy taqdim feneen foo xam ni <laughs> gën naa gën naa koy mustawa fii ñaan yàlla dafa ñu toog fexe tey wa sallallahu ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbi wa salaamu aleykum waaleykum salaam wa rahmatulah barakaatuhu alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala rasulillah wa ala alihi asxaabi abdulahi baad jazakumullah xayran ci exposé ak muhaadara bu am solo bi muy taxribu shabab aw ishaq muslim gis nañu ci mawdu bi def introduction benn muqaddima dugg na tamit ci xamle lan mooy targib xamle tamit euh, ahdaaf yi jubluwaay yi xamle tamit domaine yi muy majaalaat yi ñëw ci ëpp euh, solo tamit mooy euh, turuqu wiqaaya nan lañu fexe ba mucc moo nekk lu am solo loo xam ni di saara na ci tamit ay asila yoo xam ni yu am solo la ngir ISRA gën a mën a am xam naa bu ñu gënoon a am waxtu dana nekk loo xam ni lu lu gën a ISRA mawdu bi la lool surtout li nga xam ne ay problème la jóge ci yéen wala seen expérience bopp wala li ngeen dund alaaka leen al imam présenté wuñu ko ci euh, commencement bi na noonu moo gën ngir ñu présenté boppam euh, ñu bëri tamit jàpp gis nañ ni euh, mustagrib la wala mustaarif <laughs> سعري xanaa nga kalima alaa kulli mais comme ni nga ko xamee moom wane nag gan ni nit mun ngaa jaar ci école française ci sa cycle yëpp wante boo amee ndimbal bu jógee ci yàlla ak ay sabab euh, yàlla mun na la dimbali ba taxari boobu nga mucc moom exemple la ci loolu aussi comme ni ngeen xamee ci li ma jàpp mooy cycle am yëpp ci école française la euh, ba niveau licence licence imam ICAL université bon kon kooku bu ñëwee di e-, defal ñu exposé defal ñu arab di la arabia ak xam euh, ak euh, ni mu ko defee tarxa bi ñu ko defee kon di la ñuy xam ni li mu waxoon sànq ñi ku jaar ci cycle yi yëpp ci seen école faaw taxrib bi laal la lu dul yàlla dimbali kon euh, ni maîtriser na thème bi xam na ko ndax am na ci lu bari loo xam ni dund dund na ko euh, gannaaw bu ko yàlla dimbalee ci la bëtam xippeeku ci mbir yooyu yëpp ala kulli euh, waroon taxaw ci midi 10 dañu waroon taxaw waroon ngeen jël pause deuxième waxtaan euh, bi ñu waroon a tàmbalee wala troisième bi ñu waroon a tàmbalee euh, douze heures vingt euh, ki koy def mooy Cheikh Alhaaj Ibrahim Kane suñu waajur muy albidaatu wa asaruha ala alfardi wal mujtama te ñëw na teew na loolu tax tabaatu bi waroon a am seen diggante xam naa ko mooy ngir sàmmante waxtu bi eh, dañ koy bàyyi ba beneen yoon incha allah tabaraka wa taala ñu may leen ngeen jël pause dix minutes après eh, midi douze vingt fekk leen fi wala douze heures vingt fekk leen fi incha allah ngir ñu mën a commencé jazakumullah xayran allah barik fiikum léegi question yi. waaw voilà. waaw dama dama koy bàyyi ba mu corrigé ko ba pare. léegi question yi. bu ñu jëmee ci Warshad. ah ñu ñu discuter foofu incha allah. waaw kooku question yi waaw waaw kooku question yi. kon jàppale na ba ci question yi. waaw jëndi ko waaw. Euh, corrigé ba kii bi texte bi. dëgg la ifalaa ko balaa nga koy yóbbu ci. <laughs> ñun xëy na di majaalis la ñun. dëgg la ci yoo xam ne. waaw euh, mi ngi tudd Saqaafal. Euh, man maa ngi amoon gis waaw mi ngi ci net bi waaye am naa ci copie kii moom am am na solo daal. wala bi am na solo اللهم صل على الطلاق bi am na solo boobu bind na ci léegi nag xaw ma ndax mi ngi ci net beeg déet mais kii baa ngi nii bu ngeen ko soxlaa mën ngeen ko photocopie après da ngeen delloo ba ah, waaw waaw bëri na waaw da ngay def euh, docteur Khadim Mbacké IFAN ah, boo defee docteur Khadim Mbacké fenn di nga gis ay article bu ah, IFAN waaw docteur Khadim Mbacké département stamologie IFAN juróom am na ci ay tomb yu am solo daal baax ba kii daje baax xadis la soixante-dix 878 18 19. ok waaye ah, euh, na ngeen def <laughs> yéen université ngeen jógee. waaw ah Soprim laa dégg. ah Soprim nga dégg. 878 18 19. ah wax nga dëgg waaw c'est vrai. mooy taal xam nga taal. ah waaw. jarbaati taal la. ah taal wax nga dëgg waaw. jërëjëf. ok jërëjëf. ah waaw waaw ah. yow xam nga waaw ku ko dina wàññi macha allah gaa yooyu loolu ñuy def noonu ci xale yi ñuy jéem a yóbbu ci école yooyu yooyu man uh-huh. boobu moytu mu jural leen échec ah kay échec métti la jur dama euh, Europe Europe ñoom ñoo gën a échoué ci wàllu seen programme ñu nekk nii l'islam moo leen di sauvé sax moo tax julli ñu waruñu leen ragal daal julli ñi dañ fa war a dem li li sabran sabilillah waaw bu ko fa sa yéen fi xuuta su ma déggoon daa leen xasara su ma yuxlabuun su ma yuxlabuun naa هذا لك لا لا هذا